kooku dafay wax iyaaka nasta'iin. kooku daa wax ne iyaaka nasta'iin. man mënu ma la sax a jaamu yow laay dimbandikoo rek ci jaamu. man mënu ma laa a jaamu kat yow dong laay dimbandikoo ci jaamu bi. boo gisee ne jaamu bi. boo bi. yàllaa ko jëf rek askan la ko. yàllaa ko jëf ba noppi askan la ko. pour bëgg sa turu rafet. pour bëgg sa turu rafet. ñu gërëmee la ko. ñu gërëmee ci.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 waaye jaam yàlla ba fii. dafa gis ne moom dara rek mu ne ko yow laay dimbali ko ci jaamu bi dimbali. dafa gis ne moom mënu dara mu na ko yàlla rek na ko jaamu bii kat yow laa ciy dimbali ko. ñu ngi indi ci mu gàtt. ñu ngi indi mu gàtt. te yàlla na ñuy julli leen. te du yàlla moo ñu wax ne julli leen. waxtu na. waxtu julli wi na. kenn du mën a julli te laabuloo. kenn du mën a julli te laab moom. laab la mën a wéree. laab ci ndox la mën a wéree. ana sa ana sa ndox rek. foog de. foog yàlla may la nga soog a a nga soog a mën a nga sangu. mbaa nga sangu. nga suturaal awra. foog nga nga am kattanal mën a taxaw rukkoo si jot. nga am kattanal mën a taxaw rukkoo si jot. loolu foog nga am ci ñëwee. loolu fokk nga am fit boo ñëwee. ba mën a am kattan loolu. ba mën a am kattan loolu. ku lay jox fit bi ku lay jox nag tam fit bi. nga xarmal. nga xarmal. du wéde lu may ci jàng alxuraan. du wéde mukk may ci jàng alxuraan. ana sa alxuraan. ana yow sa alxuraan. alxuraan yàlla ji rek ci nga mën a jaar. alxuraan yàlla ji rek ci nga mën a jaar. nga mën a jullee. ci nga mën a mooy ponk yëpp. tudd yàlla rek mooy ponk yëpp. kon seet naa julli bi bu ñu ko seetee ci ngeen gën ba ci mujj loo ci def. kon seet na julli bi bu ñu ko seetee ci ngeen gën ba ci mujj loo ci def. parce que foog nga am sa suuf. foog nga am takk am sa suuf. ñu yàlla def ci julli bi bu dañee rek julli bi duñ du am. ñu yàlla def ci julli bi wóor na la ne bu dañuy julli bi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 yii tam mu sell lool yii tam mu sell lool yii tam bakkan bi dugg ci yii tam bakkan bi dugg ci ndax bakkan bi dafay noon boo dëkkat ndax bakkan bi noon la boo dëkkat boo xam ne dafay yàlla yàlla nag noon boo xam ne day yàlla yàlla la ku nekk ci ñun kat na xam ne bakkanam day yàlla yàlla nit ci ku nekk ci ñun na xam ne bakkanam day yàlla yàlla ci kaw bu la yàlla ñu defal lii rek bakkan baa nga la defal lii su wala yàlla ne defal lii bakkan bi mu la déet defal lii bu la nga bàyyi lii bakkan bi mu ne man loolu laa bëgg bu la yàlla ne bàyyi lii bakkan bi na la jàppal noonu laa bëgg. te dafay meloo sax meloo yàlla. te la boppam. bakkan baa bakkan boo mu dem ak yow nag. boo jotee maqaamam lixlaas yi. boo jotee maqaamam lixlaas yi. saa yu ñu jéem a fëgg rek pour dugaat. saa yu nekk ñu ngi jéem a fëgg ñu jéem bëgg a dugaat. ko dàqee ba mu set ci wécc nag. boo ko dàqee ba mu set ci wécc nag. loolu mooy tumaaneel. loolu mooy tumaani na fi. kon sa dal na nag ci yàlla ba dëkkalu fa nag. kon yow sa bakkan dal na ci téye ba dëkkalu fa. kooku xëyoon na ñu ngi koy woo di mu daal di dem ci yàlla moom. kooku xëyoon na ñu ngi woo ko mu dem ci yaa ayyatuha nafsu mutmainna irji'i ila rabbiki. yàlla nga koy waxaat sama tey léegi ñëwal na foor la. maqamu bu foor la. liimaana googu lamboo na ñetti maqaama. liimaana googu lamboo na ñetti maqaama. sitku ak lixlaas ak tumaninatu. sitku ak lixlaas ak tumaninatu. nga soog a dugg ci lixsaan. ci yéen nga soog a dugg nag ci lixsaan. balaa nga balaa diine jee mat itam. balaa diine jee mat itam. ñi nga nekk muslim ak moomin. ñi nga nekk muslim ak moomin. nga nekk itam muhsin. nga nekk muhsin. lixsaan nag moom. lixsaan nag moom.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 moo di foo toll. ngay fàttaliku. ngay fàttaliku. nit gi yàlla yi ñëpp seen lépp. nit gi yàlla yi ñëpp seen lépp. te biir. te biir ak. ñëpp yàlla ñu ngi ci jàpp saa yu ne. ñëpp yàlla ñu ngi jàpp saa yu ne. ñëpp yàlla ñu ngi jàpp saa yu ne. waaye teew loolu daay. daa teew loolu daay man. bu yàggee bu yàggee yàlla daf lay jege yàlla daf lay jege ba nga teew moom ba nga teew moom mooy musaadatu mooy musaadatu soo teewee moom soo teewee moom dal di xam ne yow ak meloom ak meloom ak turam ak turam ñoo fi des ba faw. ñoo fi des ba faw. lu ñu moom daf fi jógee. lu dul moom daf fi jógee. mais yow loo xam ne. te loo xam ne. te loo xam ne. yàlla la jógee. ci yàlla la jógee. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. ku dul yàlla mënalu ko dara. ku dul yàlla mënalu ko dara. ñu fi ne léegi. ñu fi ne léegi. mënaluñu yàlla dara. mënaluñu yàlla dara. ku mënal yàlla dara du ko ñëw itam. te ku mënal yàlla dara du ko ñëw kon nag ku bëgg a dëgër. kon ku bëgg a dëgër. jàppal ci yàlla. jàppal ci yàlla. kuy làqu làqal ci yàlla. kuy làqu làqu ci yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy dimbandiku dimbandikal yàlla. kuy dimbandiku dimbandikal yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. mbindeef yëpp. li dégg yëpp. ñu jëkk ak ñu mujj. ñu jëkk ak ñu mujj. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp ñu ngi la fexeel. ñoom ñëpp ñu ngi la fexeel. ñun laa jàmm moos gën a dégg la yore jàmm. ñun laa jàmm moos gën a dégg la yore jàmm. suñ ñëpp dajewoon. suñ ñëpp dajewoon. ñëpp di say xarit. ñëpp di say xarit. ñëpp di la wutal. ñëpp di la wutal. mënuñ laa jox benn pepp. mënuñ laa jox benn pepp. bu la yàlla joxul. bu la yàlla joxul. yàlla rek a mën a joxe. yàlla rek a mën a joxe moo mën a xañee. ku dul yàlla neen la. lu dul yàlla ak neen la ngeen xalaat ko. loolu dañ koy wax te gëmuñ ko. lu dul yàlla nag dañuy wax ñoom ci gëm gi. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. ku dul yàlla. ku dul yàlla. bu fekkee am na. bu fekkee ne xam na. amul dara lu mën a joxe. amul dara lu mën a joxe. yàlla rek a mën a jox rek. yàlla rek a mën a jox. yàlla rek a mën a xam. yàlla rek a mën a xam. ñu gëm yàlla te jàpp ci yàlla. ñu gëm yàlla te jàpp ci yàlla. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. lépp lu jaam bëgg war na ko sabab. lépp lu jaam bi bëgg na ko sabab. waaye na ko wóor ne. waaye na ko wóor ne. sabab si mënu ko jox dara. sabab si mënu ko jox dara. yàlla koy jox. yàlla koy jox. jaarale ko ci sabab bi. jaarale ko ci sabab bi. sabab yi. sabab yi. dama koy misaal ne mi ngi mel ni. bàyyi bi dama koy misaal ne mi ngi mel ni. suñu yàlla suñu yalwaanukaay yi taalibe yi yaa ngi di. suñu yalwaanukaay yi. taalibe yi yalwaay. taalibe bu jant sooyee. taalibe bu jant sooyee. dafa raxas ka li yalwaanam ba mu set. day raxas ka la yalwaanam ba mu set. mu dem di yalwaan. mu dem di yalwaan. xoolul que ni ba ni moo koy jox reer de. xoolul que ni bi kat ni moo koy jox reer. ku ko soxla defal ko ci këll bi lay soxal. keroog damaa ko ci këll bi foofu la xool. suñu si ñu nekkee yëpp këll bi la am kaay. suñu nekkee ñu nekkee woon yëpp këll bi la am kaay. bu dee tool bi. bu dee tool bi. sa këll bi la am kaay la. këll bi la am kaay la. yàlla lay sarax defal la ko. yàlla lay sarax defal la ko ca. bu ko defut it yow def na la war. bu ko defut it yow def na la war. yàlla may la sabab lu sabab lu ko. yàlla may la sabab lu sabab lu ko. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. moom moom lépp. mooy moom lépp. ak fépp. ak fépp. lu tey lu ëllëg. lu tey lu ëllëg. lépp ci loxoom la nekk. lépp ci loxoom yàlla. na nga gën a wóolu la nekk ci loxol yàlla. na nga gën a wóolu la kon la nekk ci sa loxol yàlla. su ñu nekk sax ci sa loxo. su ñu nekk sax ci sa loxo bi. am na loo xam ne. am na loo xam ne. moo ci fuuf. moo ci fuuf. denc lu bari. denc lu bari. ci yàlla nekkal. ci yàlla nekkal. nga gis. nga gis. lu la jaaxal yàlla faj ko. nga gis yow lu la jaaxal yàlla fajal la ko. moo gën fuuf nga denc lu du jeex. moo gën fuuf nga denc lu du jeex. am na ñu amul dara. xam nga ñu amul dara. te soxla yi ñu mën a faj. te soxla yi mën a faj. ñu dajale lu bari mënuñ ko faj. ñu dajale lu bari mënuñ koo faj. waaye nag ku gis rek mooy gis loolu. waaye ku gis nag. yaa gis loolu. ñu gisul nag. ñu gisul nag. liñ gis rek lañu wóolu. liñ gis rek lañu wóolu. waaye liñ gis dara ci fuuf. waaye liñ gis dara ci fuuf. li nga xam ne moom lañ gis. li nga xam ne moom lañ gis. bu fekkoon ñëpp danañ gis. bu fekkoon ñëpp danañ gis. ñu bëri nañu xam ne yéen ñi may waxat dara nañ leen loxo. kon dama kaw kanam yéen ñii bàyyi di gis di wax ak yéen kon dama xam ne yéen dara nañ leen loxo. ma ne karaama suñu ñëw it kenn du ko waxtaane. karaama suñu ñëw it kenn du ko waxtaane daal. waaye karaama xeet bi du ko waxtaane lan la ko doxal. waaye sant yàlla daal la ñu war a. naa sant yàlla rek. moom la ñu war a njëkkee suñu wax moom la ñu war a mujjee. moom la ñu war a njëkkee suñu wax moom la ñu war a mujjee. jaam bi. jaam bi. li ma waxal yëpp ci digganteem ak boromam la. li ma waxal yëpp ci digganteem ak boromam la. soo rafetalee sa diggante sa borom nag. soo rafetalee sa diggante sa borom. mu ngi rafetal sa jikko itam ànd ak ñëpp mbindee. dana rafetal sa jikko ànd ak ñëpp mbindee. booba ngay soog a nekk aji yonent. booba ngay soog a nekk aji yonent. mooy muy suñu xar yi. wàllu yi la loo xam ne. wàllu yi la loo xam ne. gannaaw bi yéen ci yéen ci saabaan. gannaaw bi yéen ci yéen ci saabaan. la soog a feeñ. booba la soog a feeñ. waaye yéen a ngi tuddoon na ko ci jamono. waaye yéen a ngi tuddoon na ko ci jamono. dafa dëgg woon àddina bi. dafa dëgg woon àddina bi. système bi lay faraatoo li muy nekk. système lay faraatoo li muy nekk. ci lay faraatoo li muy waddoo. ci lay faraatoo li muy waddoo. mas naa dem ci sën. mos naa dem ci seen. di far nu muy lekk. di far nu muy lekk. ab xaj a nga gisoon nga. ab xaj nekk ci seen nga. moom it di lekk ci nit dama gisoon nga. moom it di lekk ci nit dama gisoon nga. xaj bu baw ko. xaj bi di ko baw. mu ne ko bu ma baw. mu ne ko yow xaj bi bu ma baw. jaamu yàlla nga mën jaamu yàlla la. yow jaamu yàlla nga mën ni jaamu yàlla la. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. bis buñ tolluwaay ci sama njaboot. ñu gërëm la man maram nga xam ne. yàlla gërëm la gërëm la. nga xam ne yaa ma gën. su boobaa nga xam ne yaa ma gën. su ma gërëmee maram nag ma xam ne maa gën. su ma gërëmee maram nga xam ne maa gën. moom Ulaysul Qarniin. moom Ulaysul Qarniin. moo tax wàllu yi ne. moo tax wàllu yi wax ne. boo baaxee ci ku nekk. boo baaxee ci ku nekk. te bon ci bon na xaj sax. te bon ci bon na xaj sax. yàlla du la bind ngay ku baax. yàlla du la bind ngay ku baax. yéen a ngi ko ne. yéen a ngi ko ne. jigéen dem na safara ngir jenn janaat. jigéen dem na safara ngir jenn janaat. daf koy yeew. daf koy yeew. joxut ko mu lekk bàyyi mu ko mu fari. joxut ko mu lekk wëccëg janaat bi mu fari. dem dee ngi xiif. ba janaat bi dee ngir xiif. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngir loolu. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngir loolu. kon nag ñu wattoo suñu borom itam. يا ربنا سالم على ما وللخلق